di rafetlu rek ndaje bi euh, di ci félicité bu baax mooy ñoom euh, parce que initiative bu mel nii su amul woon euh, làmb dina am lu ci man mais li nga def loolu moom mooy sa warugar loolu moom moo war ëmb loolu moo war gaa yi toog fii parce que ku nekk yaa ngi doon def sortie di wax ci situation làmb ak coronavirus bi fi mu toll mais déclaration individuelle réglé problème li koy réglé mooy ngeen ànd parce que aujourd'hui l'heure est grave l'heure est grave et la situation est dramatique autorité yi il faut ñu xam li xew te xew pour ñu xam ko il faut ñu wax leen ko parce que xëy na ñu leen war a wax leen wax li xew li xew mooy la situation de l'arène est grave l'heure est grave la situation est dramatique tey tamit réew mi kenn ëpp ci cër ñii dañu ci am cër bu mat sëkk am ci taxawaay bu mat am lu ñu tekk ci réew mi am lu ñuy jëf ci réew mi liggéey te li nekk seen ginnaaw bari lool kon tey bu ñu demee je ne parle pas de la lutte, je parle de l'économie de la lutte parce que c'est une économie, c'est une industrie. La lutte bokkul ak yeneen i bagages parce que tey ñuy dugg ci làmb kenn xamul nu mu toll c'est pourquoi je parle de l'économie de la lutte dafa dépassé mbër yi nekk ci géew bi di dóorante dépassé na leen jaaykatu gerte bi jaaykatu crème bi jaaykatu boisson bi transporteur bi euh, ki nga xam ne day defar ay t-shirt infographiste bi ñëpp jaaykatu essence dañuy dund ci kaw làmb kon tey c'est industrie qui est menacée et le drame est aussi loin que le Boy Niang Boy Niang li ñu wax rek sax daf ko xaw a tuuti parce que diplomatie lay dawal mais ñoo l'heure est grave la situation est dramatique militaire ci géej gi kenn xamul nu mu toll il faut qu'on dise la vérité aux autorités problème bi da gis tànt boo gis ñaari tànt yi ñetteel ba mbër moom moo de moom moo dee ci géej gi ma laaj assurance mu ne ma benn mbëru tànk desatul sama équipe ñenn ñi dem nañu ñenn ñi dee nañu bërki démb ma dalal jantee mu ne ma grand boy yi ma doon toogal yëpp bappa bi lakkoon ci la ñu duggoon dee nañu mais c' est dramatique pourquoi mbër yi di somb loolu parce que l' espoir est perdu et face au désespoir on ne peut pas imaginer la réaction de l'homme parce que nit ñi ay góor lañu mënuñu téye di tàllal ay loxo lii la ñu am muy seen métier li ñu am muy seen métier il faut ñu jox leen cër bu ñu leen war a jox parce que ñoom politiciens yi dañuy utiliser mbër yi bu ñu leen soxla dañuy utiliser popularité mbër yi pour defar seen affaire politiquement maintenant on pointe du doigt les de ce pays pour qu'ils réagissent pour qu'ils donnent à la lutte la place qui est la la sienne parce que la lutte n'est pas exportée la lutte n'est pas importée la lutte c'est notre lutte c'est notre sport parce qu'aujourd'hui lii nga xam ne moom moo xew dix mois sans activité c' est énorme c' est nit mooy toog dix mois liggéeyoo ba pare am nga suturloo mais ñii dañoo war mais ñu ngi bëgg dee ku la ko wax ku la ko waxul ñu ngi bëgg dee alors tey promoteur bi ñoom aussi ñu ngi bëgg dee parce que joxe sa avance nekk dans l' incertitude dafa métti nekk dans l' incertitude dafa métti ci mbër donc il faut que le problème soit réglé li koy réglé mooy nag mooy ñu jéem a xool naka la ñuy def ba compétir il y a pas autre solution bëri day am par la force doole ba mënul ñàkk quelle que soit la situation nit ñi dinañu bëri comment maintenant s'organiser pour faire la lutte c'est là la question mais il faut que les gens luttent c'est une question de survie c'est une question de survie et je pense qu'aujourd'hui euh, li nga def dañ koy rafetlu merci pour ta je pense que aujourd'hui le seul combat seen combat yëpp dugal leen ko seen tiroir ngeen toog mais benn am tey c'est le combat de tous les lutteurs mooy que l'arène reprenne ses activités loolu rek moo fa la et je pense que amul tey benn mbër bu war a am soxla bu la gën a ñor que lii ni ëmb teewe teloor yëpp noonu la ñu waroon teewe parce que c'est de principe c'est un combat de survie c'est un combat bu nga xamante ni da ngeen ko war a bëre ñëpp a maa ngi liggéey yéen a ngi liggéey boo demee transport en commun nit ñaa ngi ni buut ci oto yi boo demee marché marché yaa ngi fees dell foo dem nit ñaa nga fay dajaloo pourquoi du ñu bëri. waaw loolu la pourquoi du ñu bëri. lan mooy loolu dañuy liggéey ñuy toog loolu fu am et je pense que ça c'est un premier jalon ñaar euh, man xam nga man bu ma laaj daal man je parle man kenn yorul sama kër maa ngi dugal sama kër ah, li may wax dama koy wax lii jalon bu njëkk la mooy toog alerter. mais bu alerte jeexee réaction amul beneen jaloo dañ koy posé il faut que les gens comprennent que une lutte est graduelle la première étape c'est ça li ngeen def mais deuxième étape il faut que les gens comprennent que li tey doo leen topp yëpp yaakaar seen teranga ñu koy menacé et je pense que si ñun suñu groupe la yi bu ñu ni leen dinañu bëre par force ku ci nekk li nga xam ne war na yokk la bëri kon nag dañu bàyyi gars ñu dellu ci suñuy activité jàppale promoteurs yi ñoom également ñu delluwaat ci seen i activité force covid 19 am na ay promoteurs yu ci jot mooy ñu jotoon organisé mais force covid 19 est ce que egg na ci mbëri anam anam dañu jox mbëri daal rajo xuñu leen te pourtant mbër dafa bokk ci société bi bokk ci li société bi di contribuer ci économie Quand on doit vous donner la place qui la vôtre vous des ambassadeurs du Sénégal fu nekk dem ngeen fa teewal fa Sénégal tey jot na Sénégal delloo leen dugal dans ce contexte là. Covid bi am na fu mu gën a métti fuuf te pourtant l'Angleterre commence à jouer devant des des spectateurs te pourtant la fay dee deewu fi nga dem feneen la fay dee deewu fa te ñu ngay compétir ñu ngi def seen i kon nañ ñu bàyyi ñu compétir. Modou, voilà le cri de cœur que je voulais lancer. Et je lance vraiment un appel aussi aux doyens. yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci ginnaaw xale yi tamit ñun ñëpp nañu mobiliser wu la main dans la main la force de frappe de la lutte xajul ci xeex coronavirus. merci beaucoup merci beaucoup. jërëjëf jërëjëf lii mënul woon a ñàkk. xam na ni li nga fi wax nii macha allah. mbokk yi ba tey dañuy continuer di jox ñi nga xamante ne nii teew nañu ci bërëb bi ñu yëkkati.